billah bismillah inna waliyallah barke borom Touba jefe Cheikh Ahmadou Karam barke nouri suñu yaakaar tey ak ëllëg ñu ngi jaar Cheikh mohamedou Muntaxa Serigne Bassirou ak kilifa diine yëpp nekk ci di baaluwaat ñëpp àq tay bal ñëpp nak ci shahru ramadan gii nek. rawatina mu mel dañuy waaju dugg ci jeexital gi fukki fan yu di vingtième jour nyar ñaar fukki fan ci koor ku ne ñaar fukki fan ci koor wax Cheikh Ahmadou Bamba ak jàmbaram ju baax jooju kenn ci moom Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine ñu teew fi nag comme niñ fi teewee at mu jot fii ci njabootu Chérif Abdourahmane Fall Tilala ñu koy ñaanal sunu borom yokki ay leeram te taas ñu ci barkeem mu daan amal bis bi ba ni mu làqee jëmmam ji summeeku ci njabootu boppam ci njiitul Chérif Serigne Abdoul Aziz ak rakkam yu baax yëpp biñu jouru koor gi nag ñoom ñu koy amal saa su nekk fii ci Sénégal précisément fii ci Nord Foire ci diggante alxuraan xasaayit ah ak waxtaanee mbaaxum ku tedd ki ak jaar-jaari Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine waaye nag ak bernde ndax Baye Fall bernde bernde googu nag Chérif Tilala ca mbaaxam nga dénkoon ko doomam Chérif Mourtala Tilala Fall ne ko lépp luy ndogu kër gi ci vingtième jour Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine gii am nga ci ndigal te di la ci ñaanal tawféex te teg naa ko sa loxo moom Chérif Mourtala nag mi ngi ciy góorgóorlu ànd kook ay magam ak yarakam yu baax yëpp ngir bi ndax kat ku tedd ki amul tànk ginnaaw tànk kanam kese la am te gis nañ ni at ya weesu woon ak atu ren mi wute na mbégte mi ciy am nag ak liñ ci yëg sunu biir xol ku tedd ki rek lañ koy seedeel kon ñoom dañ leen di ñaanal sunu borom kattan leen dëgëral leen ndax kat wax dëgg yàlla mujjewuñ puso bi mu réer fa leen seen baay tegoon ñang fa ba tey ñoom wàññiwuñ waaye dañoo yokk kon ñu ngi leen di gën a ñaanal ak bennoo ñoom ñu gën a laxasaayu topp ci ginnaaw Chérif Abdou Aziz Tilala ba laax ngërëmam barke ñu ngi génne léegi moom mi nga xam ne itam ndogu lii moo koy wootee ci ngeen ko wéy bu baax a yàlla saa borom yokk leen daal ñu wala rek suñu mel ni ko xam xam nga diggante suñu Abdourahmane Fall Diarra Cheikh Ousmane Mbacké Mureye muy diggante boo xam ne diggante bu yàgg la diggante bu sore la boo xam ne dañu bu naqaree waxtaane ci jotaay ndax la ca nekk ay bàcci nekk sew sew waaye loolu fënd na ko rogalaat ba yegg ci diggante Cheikh Mouhamadou Bachir Mbacké Mureye bi nga xam ni wax suñu lépp ci sëñ Tuubaa seere ci moom dafa doy sëkk ñun miin nañ jotaayal bu baax baax baax waaye ku ko miin xam nga ni ku bëgg yéen a baax baax baax nee na farata la wa salli dabban ala man xubbuhu furida xam ne Sëriñ Tuubaa wax na ko ne nee na yàgg na wax ko xam ne ci tagg ko maanaam ci bégal yegg na ceeg moom koo xam ne bu fa yeggoon ak màggetum law be moo xam ne mel na mbaam la yor muy ay bëtam nee na mu jox lool waaye ku bëggoon Serigne Touba yi tam waaye xëy na doxinu Serigne Touba te loolu rek a rafetal ak sa mën a jokk mbokk ak sa yëg doomu aadama tax na tey ku ne bàyyi ko ku nekk ñoom bëri nañu ñu fi teew ñoo xam ne ñu tey parce que lañ nekkoon waaye dañ koo bàyyi teew kon dañ lay ñaanal ci weeru kër bii nga xam ni lu ci waaye ñaan sa kat wala dana borom bi dana ko naan ndax inna li saa'imi inda fitrihi tawbatan laa turad hadis bi dafa wax ni aji ñaan aji woor bi le am na bal boo xamante ni moo waral lu ko ñu ñaan loo xam ne rek suñu borom da koy naan weer bi day weeru gëneel weeru tawfeex nga ci sa borom tànn leen bu toll nii karaama bu toll nii baax ah ndax weeru Sëriñ Tuubaa dama ko wax man a a ko ni faru ba sax ñu ne maa jamaa day si nga fi ci sama jaar aji woor ji war nañ góorgóorlu dem jàttanal ni koor kat du woor di sa rek du woor di say cër waaye woor di say la woor di say gémmiñ woor inna li saahimi inda fitrihi naa ko léegi dama doon la loola lay tax na man ko am sa koor nga góorgóorlu sa kim jàttal nga war a koore euh, kon euh, xanaa gën a santaat suñu rek te yeesalaat suñu fasal Serigne Touba roy Cheikh Mamadou Fadel mi nga xam ne rek moo waxoon ne rek ci may balaa koy tëjee bi suñu ceeb Fall bii nga ne dañoo nettali benn xisa wax ni sëñ Mamadou Fat Serigne Fall dañoo toog ak Serigne Touba laaj ko ñaari laaj dañ ko dañ ko fàkkee dañoo bëgg a xam fan la yàlla nekk dañu ko boo leen ak taal bi ngeen koy laaj Ibra Fall ngeen koy laaj Ibra Fall am naa jënd fu yàlla nekk nag laaj leen ko jiw yii te am na ko ci mag ñu jël ko laaj ko fu yàlla nekk mu ne man de tur bi yàlla tur bi ñu bëri ba xam ne li ci la nekk këram waaye wóor na ne moom suñu tubaab yi fu ne yàlla ko te tubaab yi ko lool de sa xam-xam xamoon lool yàgg koo yàgg moom tax ko tax ko moo tax ne xam ne rek yàlla nekk kon jamono bu nekk rek ñu xëy ñu kàlla bi rek ñu ci ko fàtte dara loolu la loolu ko may nag mooy dëggal sëriñ bi wala ginnaaw def ci atum kon sëriñ bi ñu ngi lay sant bu baax il faut que suñu kër ak yow kàddu bi sax dañoo bett waaye ci yow jàmm jubale xol yi ñu ko defee soppante loolu la kenn daan ndax loolu mooy ci kër gi suñ ñaan sabab def ci ndax sëñ Mor Xadim si daa waxoon ni ku ne su ma doonoon gone jàngi alquran am doon bi ma ko jàng te yóbbu ko mu jàngi ko ku ne su ma gisoon sama baay liggéey ko gis sa taw baay toog ko dama toog ñii nga xam ne sa mag yu baax bi sant ndax mën nga toppee képp la topp njaboot yi njaboot ndax keroog bi sa baay sa baay liggéey borom muy ci Sëñ Tuubaa Cheikh Mourtada dani yéen njaboot Cheikh Ousmane fàtte la rek ñaata ngeen bàyyi daf may seen bàyyi loolu itam bu nekk dañ ko dégg ñu ngi ko kon daal bi mu tënk rek dañ ko dégg ndax